rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bokk di dëru rajo Mouzayir FM 93.2 di kàddu njabootu yonent bi di jubee ci complexe imam Ali alayhi salaam Zac Mbao Dakar waaye ci Sahara FM 93.8 ci Kolda ak li ko wër ak mboolem plateforme yu ñu àndal mu leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu dellu si waat di ziar te di ndokkeel encore ci fan yu tedd yi nga nekk muy fan weeru koor rawatina nag fan yi nga xam ne mooy fan yi ñuy làmbatu wala làmb boog ak di niitu ci fan yi laylatul xadr xam naa incha allahu danañu ci gën a yaatuwaat waaye tey dañu ñëw rek ak yéen ci sunu bind bii nga xam ne moom lañu sosoon muy jéem a taataan ay leer ci ñaan gu màgg gu tedd googu di ñaanu imaam ali zeynul abidin di doomu imaam xuseyn mi nga xam ne mooy rakku imaam xasan waaye di doomu imaam ali ak fatima di doomu sang sang sallallahu ali te taalibeem booba jottali bokk ci ñi ko jottali gën caa siiw itam muy abuy xamsa ak simaali ñu tey rek fi ko imam salaamullahi alayhi di ko wax naan ko naa balaa ñuy wéy rek ñu ne mbokk yu bare wax nañ ne xam naa gën a gaawal dox bi ndax mu pare balaa weeru koor bi di jeex wala boog ci weeru koor bi imam di wax naan ko yaa rabbi hada maqaamu man laata bika wastajaara bi karamika wa alifa bi ihsaanaka wa niamaka wa anta aljawaadu alladi laa yadiqu afuka wala yanqusu fadluka wala taqillu rahmatuka وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا رحي يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فينا تمعنا فيك تمعنا يا ربي إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما من دي عصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا حقق رجاءنا يا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمنا فينا علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنها حضنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل شعرك فمن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا بنعمه continue صلوات الله وسلامه عليه imam naan ko e yow sunu borom ñii dee nungu noo taxaw nii taxawaayu koo xam ne dem na ba xamatul fu mu jëm mu ñëw làqu tafu ci sa gannaaw ci waxin bu doon ci bu doon boo koy boo koy boo koy wax boo koy niroole wala boo koy bëgg a leeral liñ ko gën a yomb waaw ndax yàlla moo amul kanam ak gannaaw bu ñuy tafu ñun de ñoo dem ba amatuñu fu ñu jëm ñu ñëw taxaw ñu ngi nii de làqu ci sa tabe ci sa baax làqu ci itam ñëw xam ne moom nga ñu baaxoo di def mooy rafetal jëmali ci ñun di ñu baaw ñu dot ci say xewal yow suñu borom subhaanahu wa taala joxe rek nga mën nag yaay tabe nag yow yaay tabe te sa tabe gi nga xamante ne mukk doo jikki ba bu doon nit tey boo ñëwee def dara jéggulu ko bu ëllëgee nga ñëw def loola bu ëllëgee nga ñëw def loola day wax ni kii daf may fonto ay yow moom sa dooy sa tabe amut xatu yaatu dafa yaatu ba nga xamante ne ku nekk mën na caa jot su yërmande itam néewul fu nekk mën na fa yegg de loolu moo tax ñu daal di ñëw rek am sikk amuñu sikk ne nga nu jéggal comme na nga ko baaxe woon di defee waaye itam ci sa yu mag yi ak sa yermande yu yaatu yi mu ne ko waaw yow suñu borom subhanahu wa taala yow de ñun amuñu yaakaar mukk duñu xalaat sax ne dinañu ñëw mukk suñuy yaakaar ngay ko tas mukk wala suñuy bëgg-bëgg li ñu jàpp ne loolu moom da ko jox ngay ñi ko loolu moom ko sax yow yow yow aji tabe ji moom du suñu xalaat mukk te itam say bëgg-bëgg yow mukk nekkul loolu ci yéen mu ne ko ee eh, yow suñu borom subhaanahu bëgg-bëgg yi rëy na de yaatu na lool itam nag waaw naa fi ka amalan tawilan léegi ñu li bëgg ci yow gudd na bari na te suñu yaakaar itam rëy na ci naa fi ka rajaan aziman te kat duwul sax dañoo ñu topp say ndigal ba ñëw taxaw de waaye afay naaka wa nahnu narju an tastura alayna dañ laa moya moya moy ba suñu gannaaw yu fees dell ki bàkkaar waaye di ragal di di yaakaar rek ni bu ñu di kii yëpp nga ma sàng ñu sutura moo tax mu am solo sàng sutura dafa am solo waaw ñi dañ war di sàngante sutura la yi doon wax rek fu jàmm am fu ne ñi xam lu mu waxut waaye li ne booy joxoñ boo jëlee sa baaraam joxoñ ko kenn sa baaraam benn bi bu dee bu mag bi mu ngi jublu ci yow te yógoo ko waaw moo tax itam mu am balante ni ko ni ko imam zeynul abidin waxee suñu borom subhanahu wa taala te ku dul wa daaw naa wa nahnu narju an tajiba lana ñu ngi lay ñaan te li ñu yaakaar yëpp mooy nga nangul ñu suñu ñaan rek waaw tajiba lana faaqiqa rajaana kon kay suñu bëgg-bëgg yi suñu yaakaar yi dëggal ko rek te jox ñu li ñu li ñuy dem mu ko ñun de sax de moom li ñu yeeyoo xam nañ ko ci suñuy xam na ne bu ñuy fekkoon ne boo ñu xoolee ci suñu jëf du baax mukk kon dara doo ko teg ci suñuy loxo ci waxin dara doo ko teg ci suñuy loxo ndax jëf ñu lu ko toll wala lu ko jar jëfuñu ko jëfuñu lu ko jar kad alim na ma nastawjibu bi amalina luy suñu jëf yi xam nañu ne jarul jarul waaw boo ci xoolee dooni jox dara dooni nangul dara walakin ilmuna fiika wala walakin ilmuka fiina wa ilmuna bi annaka laa tasrif laa tasrif naa anka xagdanaa ala raxbati ilayka waaye xam ginu xam ne yow xam nga sunu mbir li nekk ci ñin xam gu ñu xam ne yow doonu bàyyi mukk doonu jox gannaaw moo tax ñu ne nañ dem rek dem rek tàllal suñu loxo waaw teg ci suñuy mbuus dékk ko nag suñu borom subhaanahu wa taala xam ne fokk mu def ci wayn ku naa xëy da mustajibiina li rahmatika même bu dee sax ñun yeeyoowuñu sëg yërmande dëgg ci ndax suñuy jëf ak suñuy melokaan ak jikko fa anta ahlun anta juuda alayna yow moom sag mbaax sag mbaax moom yow yaay borom baax bi nga xamante ni seetoo kii wala kële seetoo ku la tooñ wala ku la tooñut ñëpp ngay joxe gi fees na ñëpp fees na ñëpp ku ne man ku ne caay am wàllam du sax ku ne mën na caay waaye ku ne caay am am raxmaani yetul muhammadi yetul ñëpp a ngi koy am seen wàll yow sunu borom subhanahu wa taala yaay borom yërmande ju matal yi moo tax yaa cay boole xam ne ñooy def ci sa ci rek sa ak dafa di yow suñu borom may ñi rek sottil ñi feesalal ñu suñuy poos feesalal ñu suñuy mbuus nangul ñu suñuy ñaan doxal eh, dëggalal suñuy yéene mottilil suñuy yaakaar ci sax ndax loolu yow yaa ko man fa ant bu naa ant alum jox ñi rek ndax yow nag li nga yore nun ñoo ko aajowoo waaye yow aajoloo ñi dara nag ba ñu ngi nii taxaw waxtaajuna ilaa naylika yaa xafaaru yëgal ñi waaye yow mi nga xam ne binuuri kaxte day naa ci tag leer ci lañu jub jub ci lañu gindeekoo bu ñëwee di la ñaan ñii rek ñaan boobu rek dèjà xëwal la goo xam ne kenn mënu koo fay ndax nangu ne yaa am nangu ne yaa man nangu ne yaa xam nangu ne lépp nga yow yow nangu itam ci suñu bopp ne nu ko nun amunu xamunu manuñu tàllal suñuy loxo dékk la ko loolu rek mënu kenn xamul ngëneel ngëneel gu toll noonu waaye ngi fi xamul ne man nga xamul ne yaa man kon xamul ne yaa xam xamul ne yaa am moom ci boppam mu jàpp ne xam na wala man na wala am na kooku du la tàllal loxo ba nag ñun ñi nga xam ne yaa nu xéwale yaa ni gindi ba nga xamante ne loolu dinañ xam nañ ko ñëw tàllal suñu loxo bon si yow suñu xewal gu mag googu mënuñ la koy fay waaye sax mbaax mën naay tax ba nga xamante ne loo ci jox rek loo ci loo loo loo lu gu nekk rek lépp lu ñu laaj rek man nga ñu koo jox yaa ko mën a joxe doon jox ni ko sa ngëneel ci la ñuy koomo ci la ñuy doyloo ci say xewal ci la ñuy xëy ci la ñuy gont te fekk ñu ngi di tax ni lépp ak ay bàkkaar waaye nag nastaxfiruka allahumma minha wa natubu ilayka li koy jéggulu tey delluwaat suñu borom yëg ni nun ñoo tooñoon di ko jéggulu nag tey balu am yéene nag dootuñ ko defati ko mukk nag mu ne ko ee eh, yow suñu borom subhanahu wa taala yow de bis bu nekk ngay ñëwoo façon bu nekk mel ni ku nu neexal sax de ñu dëgër bopp rek waaye wanu aariduka bi zunub xewal bu ne nga jox ñu ko lu ñu yelloowul nga jox ñu ko bu ñu jéngee nga jubbanti lu nekk defal nga ñu ko waaw ci nit nga neexal bu ne neexal nga waaye nun li ngay tere jamono bu nekk nun ñu moom moom la ñuy def te lépp lu ñuy def ci lu baax lu nekk ci nun lay dellu si lépp lu ñuy def ci lu bon lu nekk itam nun rek lay gaañ sag mbaax rek ka tax bu leen neexoon nga seetaan ñi rek ñëpp ñi alu ko yow mi nga xamante ne xeeru kan ilay naa naazilun jamono bu nekk ngay ñu sotti di ñu taw ay yiw ay ngëneel ay mbaax te kat wa sharruna ilayka saaidun ñun nuy def lu bon rek mu jëm si waaw nga xam yaa ngi jàkkaarloog moom ci waxin ñuy def lu bon rek xoolee woo ñu ko waaye duñu wàcce rek ay xewal waaye lu dëgër bopp rek wala mi jësal wala yësalu malakun karimun yaatika anna bi amalin xabihin waaye loolu yëpp fala yamnau kadalika min an taxutana bi niam bi bi bi niamika wa tatafaddal alayna bi alaika waaw yow yaa ngi dara rëccut la laa yaxfa ala allahi min shay dara rëccut la dañu jàkkaar rek ñun di sotti sant la a qalilun min ibadiyi shukur defuñu ko santunu la ñu tuuti ñooy sant sunu borom subhanahu wa taala waaye di def bàkkaar nga jàkkaar rek nga xam ne yaa ngi koy gis yemut ci loolu nga jël ay malaaka kiraaman kaatibiina yoo xam ne yaalamuuna ma tafalun lu ñu def lu nekk nu ngi koy bind suñu cër yi bind jaww ji bind lépp di bind suñuy jëf ñu dëgër bopp rek bu doon nit dootuñu xool dootuñu def dara waaye yow nag falaa yamnauka zalika min an taxuutanaa bi niam bi niamatika wa fadlika waaw loolu moom terewu la ngay ñu sotti rek waaw xewal yi te tafal alayna bi alaayika kon fa subhaanaka waaw waay kenn melut ni yow maa ahlamaka waay waay waay waay yaa lewet waay wa azamaka yaa màgg waay wa akramaka yaa tabe waay mubdi an wa muidan yaa ko njëkkee wala bu ko am yaa ko ko jox te du diñ mukk di ko dotti ci seen ko yow moom dee taqaddasat asma'u ko jële sanaawu ko bakoromu ko yaa baax waay yaa sell waay yaa sellit yaa baax yaa amee tagg yu kowe yaa rafeti jëf ko defee loolu imaam zeynul abidin salaamullahi alayhi diñ jàngal loolu yëpp ay xiwal la mu ne ko ay eh, yow sunu borom subhanahu wa taala yow ni nga mel ci mbaax ni nga mel ci lewet dooma xoolee sama jëf mukk di fay barca barca bu ma ba ñaawalee nga fayee ma mukk doo mel noonu bu ma defee bàkkaar nga nga nga xoolee ko ba mbugal ma ci loolu mukk sot lewet ëpp na ak loolu su ngëneel rombal na loolu bon kay xam nga am falaaf falaaf njiggal rek waaw noo tuub de noo ngi jéglu de noo ngi balu de sayyidi sayyidi sayyidi ay ay sunu sang xam sunu borom yaay sunu borom imaam di ñëw nag salaamullahi alayhi naan ko allahumma asqalna bi zikrika wa a'iznaa min saqatika waaye sunu borom subhaanahu wa taala waaye waay waay waay waay defal suñu yitte yépp nekk ci ñii tudd di la fàttaliku lépp nag waaye yal na nga ñu mbug yal na nga musal itam ci di def loo xam ne day waral sag mer yal na nga ñu làq itam fu yàq àggut ba seen mbugam duñu fa duñu du du du du fa àgg mukk yaa rabbi ci sag mbaax na nga ñu wërsëgal ci say may yu bëri yi na ñu yokki ay xéwal ci sa mbaax gi xéwal yooyu bokk na ci aji makka ziyaare sang sang yi muhammadin sallallahu alayhi ak njaboot bon kay warzuqna xajja baytika alxaram xajja baytika yal na nga ñu wërsëgal ñu ziyaare ji ñi aji makka amin amin rabbal alamin amin rabbal alamin amin wa ziyarata xabri nabiyika ñi ziyaare xabru yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa salawatuka wa rahmatuka wa maxfiratuka ay say say say say sa yokk ak xewal say yër mande say njëggal say ngir mande yëpp yàlla na nekk ci sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ak njaboot ga ndax kat innaka qaribun mujib léegi nga xam ne fuñ la fëgg fekk la fa luñ la laaj nga joxe ko mu nekk lu am solo aji màkk ku ko mën da ci sa hadis boo xam ne sangi muhammadin sallallahu alayhi wa day wax naan ku ko mën te defoo ko di ko naan xaaral ba ël ba ba déwén ba déwén ba dee fekk la ca nee na dekki boo di wala nga da nasaraan wala nga da leneen bul bul yedd sa bopp bul keneen kon ku dul sa bopp woo ko man dem rek waaw situation yi nu mu mënta demee boo mënee demal amaat rek lam la may nga def ko bul fàtte mukk nag ziyaare sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi ak njaboot ga moom mooy wax naan ku aji màkka te seet si wooma aji màkka man fay dem demoo fa kooku mooma bàyyi waaw kooku bàyyi nag mu bàyyi la ku day nekk loo xam ne am solo la ba aji màkkaangu ku ñaan ci weeru kor wi yal nañu ko yàlla defal hajja baytikal haram ziyaare sangu sag yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mu ne yàlla na nga ma wërsëgalee wërsëgalee may def loo xam ne dama la cay topp maanaam su may jëf yëpp nekk loo xam ne damay topp say ndigal di bàyyi say tere yàlla na nga ma watawaffana ala millatika yàlla na nga ma bu ma fay jógee ko di faatu yàlla na fekk ne yoon wi nga tracé muy islam ma nekk ca di ko royee ci sang-sang yi muhammadin sallallahu alayhi wa ali wa sunnata nabiyika sallallahu alayhi wa ali man nag suñu borom wa taala nu mu nii de lu jëf lu nekk yow yaa ko nangu ndax tolof tolof yéen a nekk boo ñu ko seetaa boo ñu ko seetee doonu nangul dara bon nag yow mi nga xam ne yaa ñu waxoon niñ na ngeen jaamu suñu borom na ngeen jaamu suñu borom subhanahu wa taala te buñ ci boole bokkaaleeg dara waaye suñu way jur yi nga topp nga nga tegal ko ci ne wa bil walidayni ihsaanan way jur yooyu nga xam ne sang muhammadin sallallahu alayhi wa alihi nit nee na nit dana def uquq te mu ngi bokk ci bàkkaar yu mag yi muy mooy ñàkkee worma wala ñàkkee teggiin wala ñàkka topp say way jur ci la neex yàlla nit dana ko def mu jógee fi ngay ko ñaanal ba yàlla boole la ci ne ko ñi rafetal ak ànd ak moom waaye nit dana ko dana fi nekk dana rafetal ànd ak moom mu jógee fa doo ko faale doo ko ñaanal ba yàlla bind la ci ñi nga xamante ni nii rafetal ñu dañoo ñaawal ànd ga ñu àndoon ak seen way juri bon kay nun loolu duñ ci dal dañuy wax kay ne allahumma ixfir lii wa li waalidayya yàlla yàlla nga ñu jéggal waay jéggal te nga yërëm leen ni nga xamante ne nii ndax ñoom ñoo ñu yore woon di ñu legg-leggee di daanoo ko di di di di tëdd ko taxaw di tëdd ko toog muy métti kurhan comme ni ko alquran waxee xamalathu umuhu wahnan ala wahnin lu nekk mu daj ko ci kon kay na nga leen yërëm ni nga xam ne ni lañ ñu doon yëree di légg-léggee di sonn ci ñun saxiran bi ñu nekkee xare kon kay lépp loo kam ne def nañ ko ci lu baax fayal ñu ko sottil ñu ko ci seeni misanul xasanaat waaye lépp lu ñuy def ci cafaan ba itam ñoom ñoom itam yal na nga leen ko jéggal yal na nga leen jéggal de fay lu yiw yépp te ful ko waaye li ci safaan lu nekk yal na nga ko jéggal mais lu jur jar nañ di ñaanal am na ay façon ñaan yu bare bare bare bare te léegi julli ngir yàlla julli moom dañ koy def ngir yàlla waaye comme yàlla digg boo jullee mu joxe ca tiyaabo nga julli ba pare ne yàlla loolu de dinañ indi sax xam naa dinañ indi texte bi yëpp kii bi ni ak façon bi mu ne yàlla loolu de def ko mu do hadiya sotti ko ci ruuxu samay wuy jur waaw léeg-léeg nga saraxe ngir yàlla lépp looy def ngir yàlla waaye def ko hadiya nag waaw jox ko say wuy jur li dafa am solo dafa am solo boo ko joxee danañ xam ne yaa leen ko jox lu mel ni ko yónnee woon rek benn mbir jumtukaay yi joxe e, e, wéccente xaalis yi da am yi xam ne yow la moom itam naka noonu bon buñ leen fàtte ci ñaan buñ leen fàtte julli da leen ko yéene buñ leen fàtte leen fàtte lépp lu suñu boroom gërëm nañ ko def ngir yàlla te jox leen def yónnee jox leen ko hëddiya yàlla yónnee loon ko ci seen roo ndax barsax moom dara yëgu fa waaw loo leen jox mu yëgg fa balaa yowmal qiyaam mën na am yàlla jeexal i bàkkaar yëpp feesal leen ak ngëneel yëpp ak njëggal ak tiyaabo moo tax ëpp nay kenn du leen sàggane waaye di ñaanal jullit di itam moo tax mu ne ko allahumma yaxfir lil muminina wal muminat yàlla yàlla na nga jéggal way jëm yu góor yi yu jigéen yi yemut ci ña rek waaye al ahyaai minhum wal amwaat ñiy dund nekk fi nga jéggal leen yàlla suñu borom waaw yàlla jéggal fii rek wan law yoon yoo saw yoon gën a yaatu sa leer gën a yokk sa njub gën a baawaan waaw sa xajoo gën a yaatu bon na nga jéggal ñi fi nekk ak ñi fi jógee te nun ñi nekk fi di def lu baax ba fekki leen ba fekki leen na nga jéggal yow suñu borom subhanahu wa taala ñii dundi ci ñin ak ñi faatu ci ñin ñi ñu xam ak ñi ñu xamul ñi fi nekk ak ñi fi nekkul góor ñi ak jigéen ña zakarnaa wa unsanaa moo xam gone yi la saxiiranaa wa kabiiranaa saxiiranaa wa kabiiranaa ñëpp nañ leen jégal ñi moom seen bopp ak ñi nekk tënku danga leen di jéggal nga xam ne nag ñooy diir mbagg yàlla ñu wax rek dañoo réer dañuy perte perte bu réy réy réy nag di sang di sang sang muhammadin sallallahu alayhi wa ali te wax nañ ko julli ci sang bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali firiwul rek taxaw ni allahuma salli ala muhammad wa ali bi nga mam firiwul loolu rek waaye da caa bokk te mu gën caa rëy nangu ne yonent bi muhammadin sallallahu alayhi wa ali mooy ndabul yàlla yi muy sotti xéwal yi yàlla jagale mbindeef yi defar na ko lépp jël malaayika yépp mobiliser leen pour ku nangu boo ñëwee mu jox la ña nanguwul sax dee danañ am lu tolloog la ku nanguwul di am woola nag ne la ñëwel li nga bokk ñépp mu ngi waaye li nga xam ne boo ko sàkkoo ñu jox la ko mu ngi moo tax mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yàlla de moom pare lépp xiwal teg na ko ci sang muhammadin sallallahu alayhi wa ali waaye wa malaikatahu ñoom de mobiliser nañ yàlla mobiliser na leen ni leen aywa nekk leen ci service nekk leen otage jaam yi nga xamante ne ñoo nangu bon nag yéen dañ leen di woo ne leen sallu alayhi wa sallim wa tasliman aywa ñëw leen gaaw ci salon bi ñi réception bi ñu jox leen li nga xam ne moom ngeen di nangu loolu nag da nga koy nangul donc comme niñ koy faral di waxee rek toujours bu comme yàlla loolu da koo jagleel wa ma arsalnaka ila rahmatan lil bu biya sangi bu jógee itam dana am ko xam ne moo koy recevoir rawatina ci fan yi nga xam ne mooy fanu laylatul qadri koy refaar mu recevoir mooy imaamul asr wa zaman imaamul mahdi ajalallahu taala farajahu sharif te loolu xam naa dinañ ci ñëwaat bu dëppoog dogal a borom bi bon sang baa ngoog boo ko joxee benn mbattu mu jël ko booleel li ci fukki mbat boo ko joxee benn kaas mu feesalal la ko yokk ca yeneen juróom-ñeent mu fukk moo tax muy wax naan ko julli man benn yoon yàlla julli ci yow fukk boo ko defee fukk mu def ko téeméer boo ko defee téeméer mu ne la kii daal xëccal ma ko moom man ak moom ñooy bokk ay diiwaan dootuñu sorewate ban jullit ci sang muhammadin sallallahu alayhi wa te samay mbir yëpp nag nga may ma aqibatul umur mbir yoo xam ne ca mujj ga baax nag waaw dem nga am solo la di ko ñaan waaw walla balaa ñuy rey yàlla def nu deferoo deferoo deferoo deferoo ba lépp deferu lépp di yëw lépp di xiwal safaan bi yëpp nga teggi ko nga mu nga musal ci wa kafina ma ahammana min min amri dunyaana wa axiratina na nga ñu fajal sunuy aajoy tey ak ju sunuy aajoy tey ak ju ndax loolu tam lu am solo la waaw faj aajoy am na solo lool am na solo lool waaw am solo ba tax ñun ñëpp yal na yàlla faj sunuy aajoy tey ak du ëllëg waaw amri duniyaana wa axiratana mu ne wala tusallit alayna wala alayya man laa yarhamuni yàlla bul jël mukk koo xam ne amut yërmande ci man waaye am sa bu ko may mukk sañ-sañ ci man wajal alayya minka waaqiyatan baaqiya daf ma daal man ma nekk ci sa kaaraange goo xam ne ci lay des bu faw nag wala taslub nii saaliha ma anta bihi ma an'amta bihi alayya bu ma jox mukk ay xiiwal ba ca kanam nga dindi ko mu mujj nekk koo xam ne ab wala kaana laa da dem bàyyi ma ci xiiwal yi rek xiiwal yoo xam ne day baawaan waaye day saxitam warzuqnii min fadlika na nga ma wërsëgal ci sa mbaax tedd nga ci sa euh, yaatu ci sa tabe rizqan waasixan xalaalan tayiban wërsëgu wooxu yaatu waaye nag lew teey te dagan imam salawatullahi wasalaamu alayhi di continue ci ñaan gi naan ko alaaw mahrisni bi xiraasatika waxfasni bi xirsatika wakkala ani bi kala atika ba ñaan gi yéen allah bu dëpp ak dogalam borom bi fii ci rajo Mousdahir FM 93.2 di kàddu njabootu yonent bi di jubee ci complexe imam ali alayhi salaam sax mbaaw Dakar waaye itam di jubee ci complexe ci Zahra FM 93.8 ci Kolda ak li ko wër ak ci mboolem médium ak plateforme yi ñu àndal ñu ngi leen di ziare waat ci xarala gi fii soxna Khady Diatou Diouf bi seen mbokk Mouhamadou Mourtada Gaye waaxiru daawanaa ni alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala